mbokk yi dal na ak jàmm ci biir RTV Dakar di leen jaajëfal nag ci topp bi ngeen ñuy topp information euh, bu am ci ki nga xam ni euh, moom mooy Soumboulou li nekk actrice fi nga xam ne moom mooy Sénégal moom nag euh, ñu ñuy xamal ni dafa daal di tàggoo ak boroom këram bile di Abdoulaye Diop Xaas lii di information bile nag kii di xaritam di wuyoo ci moom moo daal joxe bile xibaar ñu fàttali nag ki nga xam ni moom mooy Soumboulou ak Abdoulaye Diop Xaas jotoon nañ fee sëy ba am benn doom waaye nag bu ñu sukkandiku sukkandikoo nag ci li nga xam ni xaritam bi la Adji Mass daal dina koy wax sëy boobule daal nay jeex ndax divorce daal nay am ñu bari nag doom laam-laamee li la waaye ki nga xam ne moom mooy Adji Mass nag daal di na koy confirmer ci benn plateau télévision loolu nag nekk divorce boo xam ne nag sénégalais yi xaaruñu ko woon waaye mel na ni jamono ji nag diggante Abdoulaye Diop Khass ki nga xam ni moom mooy Soumboulou Bathily daal dinay jeex di leen jaajëfal nag ci ngeen ñuy topp di leen wax comme toujours ngeen continuer eh, di seen chaîne RTV eh, Dakar eh, di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen information kuy yëngatu ci commerce import export gawal contactel ma maktou business service yu yaatu am toppatoo lool di yëngu ci walu sérigraphie décoration xoolal amal sa événement rek contacte maktou business mu defal la ci ay t-shirt yu rafet am qualité su bëggee itam mu tegal la ci ay casquette maktou business di def ay panneaux publicitaires ay gadget et enseignes lumineuses yow dal le contacte maktou business ci 77 985 47 58 wala 33 926 63 69 maktou business service billets ci commerce import export sérigraphie décoration dañuy confectionné ay t-shirt casquette panneau publicitaire gadget enseigne lumineuse fi file le business ci business professionnalisme le